seytaane rajim bismillahi rahmaani mbokki ñaaxeen ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi euh, chef de village di ko ñaan mu jottalil ñu nuyoo bi bépp doomu ñaaxeen di nuyu

andi ak ñu ànd ñëw fii ngir jëmmal bis bi bu ñu limee Ablaye Gueye mi nga xam ni mooy magum délégation bi rek lim nañ ñëpp nuyu nañ Mor Diarra Gueye nuyu Sekan nuyu Got nuyu Matar euh, nuyu nañu ñëpp Mapate bàyyiwuñ kenn di nuyu suñu njabootu bopp di nuyu suñu soxna ma chérie ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf di nuyu la marraine Adja Koura ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di nuyu soxna Xadi waaye nag di beral nuyoo Gora Gueye le représentant de notre cher ami Serigne Modou Deme góor ñu ngi lay nuyoo di la dalal jàmm Matar ñu ngi lay nuyu bu baax di muy waa Ñaaxeen yëpp di jaajëfal waa Arkayor ci li nga xam ni def nañ ko ci suñu jëmm yu xeebu yi ndax Ñaaxeen lañ dëkk euh, bii bu ñu juumul mooy suñu juróom wala juróom-benn parrainage yoo xam ni fii lañ ko dunde waaye amul benn parrainage boo xam ni dàqal nañu ci bii ndax bu ñu ko waxee ñoom xam nañ ñun xam nañ du tey démb la woon yaakaar naa ba ngeen di door seen première édition di fi indi artistes yoo xam ne bi ngeen nee dañuy ñëw ñaaxeen ñu bari gëmuñu ko woon maa leen daloo woon kon sama digganteeg yéen du tey démb la waaye nag ku nekk xam na ni ngànt amoon na xat-xat am na waaye lépp loo xam ne jóge na ci yéen wala mu jóge ci benn doomu ñaaxeen rawatina ndaw ñi jëm ci man bu ma ko gàntoo du ma gor suba bu ngeen amaatam bis tudde ma ko ma jëlaat ko ca xol bu tàlli laa koy jëlewaat di je téyel ñu foofu daañu jeng waye du daan wax nga dekk téyel ñu ko ci kanam nga dugulat ko ñu wax la li tax daañu jeng waaye duñ daanu arkayor ñi ngi leen di sant bu baax di leen euh ben doomu ñaaxen bu nekk bu solon dal lu ngeen sol def li ngeen def tay ñaaxen romb na fu mu nekk dem fu sori ma di leen wax ni gëm leen seen la xassay wat leen ca xam ne li ngeen di def ñaaxeen ngeen ko defal am na ñoo xam ne ñoo leen mag fuuf li ñu li ngeen defagul mu defuñu ko fi kon yéen ay doon ay ndaw mën na nekk ci leneen laxasaayu ni da ngeen di liggéeyal kajoor loolu vraiment képp kuy doomu ñaaxeen yoreel na leen cant yoreel na leen gërëm te bu war na leen a ñaanal yàlla kon ñu ngi leen di wax ni muy tay muy suba muy guddi muy bëccëg muy taw mbaa muy naaj saa bu ngeen ma soxlaa bu leen hésité ñëw leen parce que li ngeen di def jàpp naa ni man ngeen koy defal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci loolu di leen wax ni am ngeen mission bu doy waar parce que ku wax aar Kayoor xam ne da ngeen a am ci lu ngeen di yëngu muy théâtre di aada ak cosaan ca ñuy wax ni c'est la culture qui reste quand on a tout perdu nit bu demee ba xamatul boppam Adam ak cosaanam rek moo ko mën a gindi kon li ngeen yor yàlla na ngeen ko xam te bu ngeen ko xamee yàlla na ngeen ko jariñoo di leen wax ni au delà de l'aspect ludique moi maanaam di wax nit ñi ree vous avez une mission beaucoup plus noble c'est-à-dire celle de conscientiser les gens dugg ci bopp ni

ay man nañoo bëgg doon ay gambien wala ay ivoirien ndax li xew ci dëkk bi dossier Adji Sarr Sonko mi ngi fi bërki démb Cour des comptes génn dossier boo xam ni mbas mi ñu doon duma dinu tëddiloo huit heures ak neuf ñu génneel ñu ci ay nit yoo xam ni c'est des autorités entre guillemets ni ay kilifa lañ ci réew mi ñun sàcc nañ alalu réew mi buñ demee ba Sénégal toll foofu ngeen ni da ngeen a jóg pour di jàngalee kay yeete dama ni ngeen xoolaat seen bopp ca xam ni au delà di wax nit ñi ree am ngeen beneen liggéey bu ngeen war a def mooy fexe ba mag ñi nga xam ne ñun wéy xam naa yar ñu du yomb defar ñu du yomb waaye nag set jeunesse là entre sept huit ba dix ans war ngeen a fexe def ci ñoom jom ngor fulla fayda ak wéet gore wéttali ko gore ndax am na loo xam ni

loolu laa bëgg na wax foofu sant leen bu baax gërëm leen di leen wax ni yoon wi gudd na metti na waaye nag bis bu ngeen gëmee ni war ngeen mën a egg fa ngeen jëm di ngeen fa yegg te je sais que vous êtes brave et vous êtes courageux kon di ngeen yegg ak yéen waa Dakar ñu sant leen bu baax gërëm leen parce que nag c'est pas évident xam naa ni programme yi bari na parce que nu sommes le mois de décembre bàyyi ngeen lu bari waaye nag da ngeen xam ni laar n'a pas de frontière li ngeen nekk ndakaaru di ko bay ci aar bi ak waa Ñaaxeen li ñu nekk di ko bay ci aar bi lépp benn bi la moo tax ngeen fàtte seen bopp bàyyi seen i programme ñëw ngeen ngeen bokk ak ñoom seen i 48 heures c'est pas la première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois

waa ñaaxeen ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal euh, parrainage bi suñu xol dafa sedd parce que doomu ñaaxeen moo jël tudde doomu ñaaxeen kon bu ñu loolu doyul dara duñu doy ñu bokk ko nag ak waa ñaaxeen mu neex ñu ànd ko ñoom mu naqare ñu ànd ko ak ñoom kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm doléances yi dégg nañ ko war ngeen a am fu ngeen di fawe waaye nag je sais que tàbbiwul ci noppi ku tëx euh, do ba ngeen di door metti na waaye nag ñi ngi leen di gunge ba fii te xam naa ni ñi leen di gunge di leen continuer di leen gunge ndax li ngeen di def defalu leen ko seen bopp ñaaxeen ngeen koy defal ca bépp doomu ñaaxeel abel na leen njukkal bu wéetee amus tuut war na caa cof wëlbatiku gestu leen ndax da ngeen di dem tey bàyyi ko fi waaye nag les génération futures bu ñëwee coono yi ngeen di dund yéen ñoom waruñu ko dund ko bàyyi xel daañu ci ko def suñu combat kuñ ci war a wax daañu ci wax ak yow fuñ ko war a jooytoo daañu ko jooytoo ba ensemble ñu réussir cette mission la du ñu wàcce kàddu yi ñaanal mu dund dina am du ñu wàcce kàddu yi ca saltuñu ay nit euh, ñi ma bokkal délégation bi du ñu leen sant parce que tey bu fekkan ñoom lañu ñu tudde bis li ñu def moom lay def kon seen yëf la dama leen di ñaanoon rek yàlla may leen kàttanal leen ba fépp foo xam ni euh, njaboot wala mbokk soxla na fa ngeen taxaw fa taxawaay bu mel ni bi ngeen taxaw tey sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen di parce que nag doomu bu santul rek xaram te jàpp nañ ni nag même bu dul ay gor ñaari goro ñu sukk jur ñu ngi sant bu baax di gërëm doomu ñaaxeen Alé Ndiaye ñu ngi koy bu baax di ko gërëm dinaa leen wax lu tax gis nga ni ma les 48 heures de ñaaxeen ca 72 heures gàmmu Mbàkke Kajoor gi tax ñu wàññi ko def ko 48 heures bi ñu génnee sama kër rek damaa woo le maire Moustapha Sylla parce que ku war mu dund ak tëggub dëkk te ku nekk xam na ni ci wàll gi ñuy yëngu muy politique moom la ñuy guddil di ko bëccëgal ma woo ko waxtaan ci ak moom weccoo ak moom ay xalaat ci li ma gone yi wax Aly Ndiaye du guddi du bëccëg musuma ko woo musuma ko envoyé message musuma ko envoyé vocal musu ñëw wax ci bi kon bu wëlbati ko taxaw taxaway bi mu taxaw jëf limu jëf nga xamni enveloppe bi nekk ci sama poche mo war leen ko jox mën naa ne lépp moo ko joxal te wóowuma ko mom kon japp nani ni buma ko santul duma gor kon ñu koy sant bu baax di ko gëreum waaye nag xam na ne li mu def la war a def parce que ñaaxeen moo woote tudde doomi ñaaxeen muy doomi ñaaxeen gis boppam ci tur yi kon bu doxee wut ni mu doxee rek ñu jaax dinañu jaaxal parce que moo ni ñaaxeen na ko ñor te man ñaaxeen lay wàlle waajew moom lay wàlle di sant bu baax di gërëm suñu xarit monsieur le maire Moustapha Sylla wax na ko ci délégation ci léegi bi muy jël kàddu nee na ci suba rek déggante nañ effectivement déggante nañ parce que c'est mon leader politik bu matahau ma taxaw di wax ak yeen kon buñ ma tuddé lu melni Mawit may wajj dem ci yoon la ma waxtan ci ak mom momit mu taxaw ci taxaway bu rafet liko ci war lepp mu def ko ñing koy sant bu baax momit diko gëreum ci lool di wax ni tiant munta wessu sant mais ni ngi sant waa Ñaaxeen yëpp ñu may ñu tuuti nak di jé bo mané delo ci wat li nga waxan ni jeng waye do daanu